jërëjëf sëriñ Sidi Mokhtar Ka yàlla na ko yàlla fayal ci waxtaan bu am solo yi nga xamante ni ni def na ko ci assemblée générale bi waxtaan ak mbooleem adduna bi waxtaan ak mbooleem waa fédération Maam Jaara yi waaye itam waxtaan ak mbooleem murit tii kon loolu lu am solo la loo xamante ni nii euh, ca jamonoy sëriñ ba Bassirou la ko tàmbalee di def ba fii ñuy wax ak yéen moo koy def euh, ba ñu bàyyikoo nag ci assemblée général bi nag dañuy daal di dil si kon ci li nga xamante ne nii nag moom mooy cérémonie officielle bi di tëj wàllu màggal gi muy euh, jataay boo xamante ne nii mbooleem kilifay aada yi mbooleem kilifay diine yi dañ fay daje sëriñ bi waxtaan ak représentation bi nga xamante ni ñoo bàyyi ko ci gouvernement bi waxtaan ak kilifa yi waxtaan ak yoon wi waxtaan ak àddina bi ñu sargalante man nag daal di dellu nag ba déwén. kon ci cérémonie officielle bi nga xamante ne nii ci màggalu Poroxaan atum 2010 ministre Bekay Diop jiite délégation gouvernement bi ànd ak mbooleem délégation ñu ngi gis waa parlement bi ak waa Sénat ñoom ñëpp am ñu leen fi teewal. administration territoriale bi tam muy gouverneur muy préfet muy sous préfet ñoom ñëpp ñëw booy sëriñ bi bokk waxtaan ak ñoom ba ñu agsee nag ba ñëpp teew ministre de l' intérieur du monsieur Bekaay Diop moo njëkk a jël kàddu waxtaan ak sëriñ bi ba mu noppee sëriñ bi tontu na ko kon lii asalaamaaleykum wa rahmatullaahi bi ci màggal Poroxaan atum 2010 Cheikh Muntaga Mouhamadou Muntaga Mbacké xalifatu Cheikh Mouhamadou Bachir man ak délégation bi ma àndal ñu ngi lay nuyu di la ziyaara yàgg mboolem njabootu borom Touba gi teew fii ak taalibe yépp ci turu président de la république maître Ablaye Wade ak ci turu premier ministre ak gouvernement bi yépp di leen sargal ak ndokkeel ci bés bu màgg bi ñuy fàttaliku sunu maam yu baax ja soxna Jaara Buso borom liggéey bu réy nga xam ne résultat am mu ngay njëriñ askan wi yëpp ci gox yi àdduna bi yëpp mu doon koo xam ne modèle la référence la ci bépp jigéen bu bëgg am cër ci yàlla walla mu bëgg am taxawaay bu mag ci biir société bu mu nekk ndax jàng nañu ci histoire ne jigéen yàlla mayoon xam-xamu diine la jaamukatu yàlla bu mag la woon borom jikko ak melokaan bu rafet la woon waaye bu amoon taxawaay bu rëy ci wetu maam Mor Anta Sali mi ko yàlla boole lool nekkoon na ku farlu ci yar njabootam ku daan sàmmonte ak ak i dëkkandoom li histoire wax ci moom nag bokk na ci lu li koy firndeel doomam ju baax ji ku yàlla ko yàlla seddoon di xaadimu rasul ak dëkk bu rëy bii ñu nekk tey fii te tudd Poroxaan ak lu rëy li fi yàlla def ak bésam ju rëy jii ñuy fàttaliku bokk na ci bokk na it ci loo xam ne lii lu lu wone firnde bi la yeneen beneen firnde bi di doom yu jigéen yi ñu fiy yar ñu leen di jàngal alxuraan di leen defal formation professionnelle ci mbee mboolem liggéey boo xam ne bii jigéen mu ci yëngu yàlla nañu yàlla na ko yàlla fay te taas ñu ci barkeem fayal ñu sëtam bu baax ba di sëriñ Bassirou Mbacké bi ko wutal bés bu rëy bii ak Serigne mustafa mi yaatal mbir mi ba mu egg si fii te yow Serigne Mountakha yow mi leen fi wut yàlla na nga fi yàgg te wér yow mi toog ci kanamu njaboot gi ba yàlla bàyyi la fi may la jàmm may la wér gu yaram ba nga àggale mboolem li nga yéene liggéey ci seen gannaaw. sëriñ bi président nee na mi ngi jaarale ci yow nuyoom ak ziaram ci xalif général kullu murid mu Cheikh Mouhamad lamin Bara nee na mi ngi feddali kolleeram ci yow di sàkku ngeen ñaanal réew mi ak li ak bépp réew bu ñu wër ngeen ñaanal sénégalais yi ñaanal bépp mbindeef bu dund feneen fu dul Sénégal te xam na ne bu ngeen ñaane yow boo ñaane yàlla dina nangu ñaan mu ngeen ñaanit ngeen ñaan ñaan boo xam ne bii ñaan xaas lay doon ndax li doon yëngu Casamance tey ci suba sax xëy na déglu ngeen ci rajo yi fas nañ yéene waxtaan ndax jàmm dellusi ci gox yooyu senegaal nekkaat benn amaat benn xalaat amaat benn gis-gis nu liggéey ndax jafe-jafe yi nekk ci àdduna bi bañ ñoo dal mu lay ñaan it nga xam na sa ñaan ni mel ngañaan xol yi ak xalaat yi ak xel yi nekk benn fii Sénégal xuloo bi ñiiroo bi ak ŋaayoo bi wàññeeku xasante bi ak saagante bi dàkk ndaxte Sénégal ni ngeen ko tàmbal di ñu ko waxee benn bopp la bu problème amee ñëpp a koy yëg problème bu amee fii du dal ci kii bàyyi kii mais wóor nañu ne xaadimu rasul lu mu fi def ak yeneen mag yu baax yi lu ñu fi def wóor nañu ne dara mënu la dal loo xam ne lii lu naqari la dara mënu dal senegal mais ba tey mu ngay ñaan nga continuer di ñaan ñaanal réew mi ñaanal doomi réew mi ñaanal askan wi ndaxte ci jàmm la yépp xëy te bés bu ne buñ gisul it ñu ngay dëgg lu xew ci yenn réew mi loolu wóor na ko ne yéen a ngi ci te du fi ñëw mais ba tey comme ñaan du doy fi muy jógee du jeex fi mu jëm du fees ñu dellu rek di leen naan ñaan leen xel yi ak xol nekkaat benn ndax loolu mooy loo luy jëriñ Sénégal xuloo bi ak euh, xastante bi amatul amul njëriñ te loolu yaakaar naa ne bëpp sénégalais xam na ne du loolu moo ñu yóbbu kanam di ñaan nawet wi di ñëw mu am ndox ba doy mais ndoxu jàmm mu bañ a doon ndox bu yax te lépp loo xam ne lii bay nañ ko ci yàlla def ci barke ñu lekk ko ci jàmm ak salaam sëriñ bi président nee na mu ngi lay nuyu di feddale seen kóllëre di jarul sax ma wax ko parce que yaa ma ko gën a xam di dellu di leen naan rek moom taalibe la ci seen ci ci ci seen waaw lay wéy ci seen ci ndigal lay yàgg wéy te ci lay wéy amul benn xalaat amul benn soxla lu dul liggéeyal senegaal jaamu soxla waa doomi réew mi ba Sénégal yegg foo xam ne fii Euh, ñun ñëpp loolu lañuy ñaan yàlla ma dolli ci rek ne sëriñ bi maa ngi ñaan ci suma tur ak turu délégation bi fi toog yëpp ngeen ñaan yàlla mu may président de la république wér mu may ko jàmm may ko aafiya ndaxte euh, borom kër bu nekkul ci jàmm njaboot ji mënul nekk ci jàmm boroom kër bu tàllul wut njaboot ji boo moytul mu xiif assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu toog mboolem kilifa baax baax turu suñu bokk yu baax yi di nekk jubatu Serigne Touba seen tur ñu ngi leen di bu baax lii teewal ci seen jëmm président ñu leen yebal ñu xamal ne ñu ngi sant bu baax a baax sa jiitu naaw ba nu sante suñu borom sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñu fi bàyyi xàllal ñu yoon loolu leer noppal ñu ci lépp nga xam ne président am na ko ci dëkk bu sell bi yëg nañ itam euh, yéen ci seen jëmm teewal ngeen ko ngeen ko teewal fii yëg nañ ko bu baax a baax ndax seen ni ma ko waxee léegi yow cant ak ngërëm jiitu na la fi jiitu na jataay bi ndax bañ la jëkkee gis ca Tuubaa taxawaay bi ba nga fa taxaw wax ju baax ja nga fa wax ñu xam ne dëgg la ci yow booba lan la nangul booba lan la jàpp boobay lan la santoon gërëm la kon bu yàlla dogale fi nga ñëw ba fii gannaaw màggal gi rek eh, liggéey bi topp ci nga am taw feexit eh, teew si teewe si ko fi ci ci ci ndigal loolu am nañ ci mbégte bu baax xel bu baax gën na yokk suñu yaakaar bu baax a baax ndax taxawaay moo mënta ñàkk waaye moo jafe kon nag bu nu xamee taxawaay bi te mu mët sëkk jiitu ci président xamoon taxawaayam ba mu taxawoon ci suñu weti ay kilifa xamoon nañ ko lu jiitu tey waaye nag eh, gën nañ koo gis eh, bi nu gisatu suñu kilifa nam taxawoon seen wet rek gis na ne noon la taxawee fi suñu wet loolu nag eh, wax dëgg yàlla cant gu rëy la di ko di ca dellu sax moom waxit rekk la santoon nañ ko li jiitu lii ci ay taxawaayam santoon nañ ko ci lu jiitu lii ci yéenam ci nga xam ne am na ko ci réew mi ak sëmbu yi nga xam ne am na ko ci réew mi rawatina fa Tuubaa rawatina fii fi Poroxaan loolu gis nan ko bu baax a baax yëg nañ ko bu baax a baax noo ngi ñaan rek ñi nga ko waxee léegi noo ngi ñaan noo ko ñaanal yàlla tëbb ko kàttan may ko wér bàyyi ko fi ba àggale sémb yi nga xam ne sémb yi nga xam ne sémb la ko ci liggéey réew mi noo ngi ñaanal bu baax a baax yow kilifa gi bekkaay ñoo ngi leen di sant bu baax di sant mu délégation bi nga àndal xam nañ ne euh, yéen ju rafet moom lañ ànd ak ci ndigal ñëw fi ak yitte ju mat sëkk kon noo ngi leen di ñaanal bu baax kenn ku ne la xam ne moom lañ dénk suñu boroom defal la ca tawfiq boole la ci ak ndimbal te de te may jëlee la jëlee la jëlee la ci ay ay ay ndam yëngutuma it suñu borom defal leen ci barke noonu lañ ko ñaanal bu baax a baax gannaaw bu leen santee gërëm leen xam nañ seen taxawaay bu baax lim dafay dul yomb waaye ñii fi sëñ ñi ñu fi lim ñépp noo bokk kër gi ndax noo bokk Sëriñ Tuubaa eh, ba tax na eh, am na mbégte ci jataay bi bu baax ndax bu doon sa jëmbi kese itam noo am ci mbég rawatina nag eh, kilifa yi nga xam ne ñu leen a tànn ngeen ànd ñëw teew si ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ñaan nga jottalu na cant gi président da koy gërëm di ko ñaanal xam na gis nañ taxawaay bi bu baax xam nañ yéene ji gis nañ sémbu bi yàlla ko suñu sant bokki Sëñ yi di njabootam ñu leen sant bu baax a baax dina ndax xam nañ ne noo ko bokk noo ci yem képp xam nañ ne itam dogal gii suñu boroom dogal njabootu sëriñ bu féete fi xam nañ ne bu baax ñoom lañ fi nekkal ndax soxlu wu nu fi lu nu fi am lu nu bokkut ak ñoom xam nañ loolu bu baax waaye jëfe nañ ko ndax képp ko ko man teew si nga ci bis yii moo xam yaa ngi ci jataay bi moo xam ñëw nga def sa wartiif dellu ci tàggoo bu rafet kon ñoom itam ñoo leen di sant bu baax a baax fas yéene rek itam ni nu ko bokkee rek noo ànd ko ni insha allah eh, gannaaw loolu itam eh, noo ngi lay seereel eh, taxawaay bu rafet bi nga xam ne gouverneur ak ñu mu bokkal liggéey bi ñu mu àndal liggéey bi préfet département bi ak ñi ñu ko bokkal ñëpp ñu ngi leen di seeral ne sant nañ leen gërëm na leen li leen war lépp def nañ ko te xam nañ ne seen yéene lu ñu fi def rek seen yéene romb ëpp nañ xam nañ ko ci ñoom seen cawarte seen yitte seen yëngutu loolu gis nañ ko ci ñoom kon noonu lañ seeral ne liñ leen santoon lépp ak seen warti fu bopp lépp def nañ ko noonu leen seer ñoo leen seeral ne gërëm nañu leen sant nañ leen gërëm nañu leen di leen ñaamal ñaanal ñoom itam nag eh, loolu sax eh, xanaa dañ koy bokkat ñoom rek eh, ñoom ñi am taw fi am taw chance bu toll ne féete fii dend ak soxna su tedd si di ko liggéeyal liggéey bii ñu koy liggéeyal lépp di njariñal taalibe yi njariñal njaboot gi eh, loolu kon dañuy gën a ñaan rek eh, barkeb soxna si eh, boole nu wàllu nun ñëpp dajëpp président de la République ak ñi mbokk réew ñi mbokk liggéey bi bi kilifa gi toog gouverneur délégué bi nga xam ne ñoom ñoom ñoom a àndal ñëpp ñoo ngi ñaan ci barkeb sonsi si suñ borom wallu leen ci seeni seeni yitte seeni aajo seeni càkkutéef seeni seeni liggéey ñoo ngi naan ci barkeb soxna suñ borom wallu leen ci ba kenn ku ci ne eh, yëg ndimbal ci biiru liggéeyam kenn ku ci ne gis gis euh, jeexiti barkeb soxna si kenn ku ñëw ci yéen gis ko donc ko ñaan bu baax te mooy rek mooy am euh, noonu kii ñaan bu baax a baax a baax euh, suñu borom yéwénal mbir yépp faj aajo yépp ñun ñëpp nag ñu bokk àndandoo di ñaanal réew mi ni ko ministre waxee eh, bu nu ñaanale président yàlla tëb ko kàttan bàyyi ko fi bu mu àggale ay sémbam eh, kon dañuy ñaan nag eh, ci suñu borom dotti ay xéewal ci réew mi def fi barkib ci barkib Sëriñ Tuubaa su boroom eh, def fi ay njariñ yu bari def fi ay xéewal yu bari eh, ba ñépp yëg ko eh, tàmbale ci nawet bi su boroom defal nu ci tawféex defal nu ci lan ci séentu bëggu ko ci defal nu ci lu kawe suñu jort noo koy ñaan bu baax a baax kon nañ bekkaay ñoo ngi dellu rek di la sant sant ñi nga àndal ngeen jottali lu cant gi président ak ministre premier na ngeen leen jottali suñu nuyoo ak suñuy cant di xamal ne itam nag noo ngi fii rek incha allah xam nañ yan bi leen yàlla yan ci réew mi eh, xam nañ ko bu baax eh, maak njabootu Sëñ Tuubaa gi yépp ci seen tur na ngeen am calme daal bu baax ne eh, sunu mbir yépp jëme nañ ko ci liggéeyal sëriñ bi ci réew mi lu ngeen ci bëgg rek noo cay ànd insha allahu eh, ndax nu amul beneen liggéey jaamu yàlla ak ñaanal njaboot bi loolu moom moom rek mooy suñu liggéey kon ñu ngi nu ko waxe woon noo ci danañ ko gën a dolli ñoo ngi ñaan bu baax a baax a baax eh, yàlla ñun ñëpp sàmm sàmm leen sàmm réew mi eh, dàq fi lépp lu ne ko ay te itam ci kàttanu sunu borom ci ndimbalam ci xarañam mu booleaat xol yi Sénégal sax alhamdulilah sant ci war ndax lii xew ci réew yi xewu fi te loolu barkeb kilifa kilifa yi fi jaar eh, eh, defarug suñu borom gi nga xam ne defar na ko Sénégal defar ko euh, leeral seeni xel defar jikko yi bañ mën a jéem a àndandoo mu gën a rafete loolu mu am na waaye dañuy ñaan nag suñu boroom gën noo dolli bañ gën a mën a ànd na mu gën a rafete loolu rekk ànd bu rafet bi rek euh, daanaka doy nag ñaan li nu bëgg lépp bu nu jéemee góorgóorlu ànd ànd ànd te yàlla tax ànd ngir yénente yénente lu baax eh, nga ànd fa séene dimbalante bu nu ko defee rek loolu doy na ñaan waaye du tey ñu ñaan dolli ci yàlla suñu borom wallu nu eh, dimbalanu bu baax a baax a baax ba mën a nekk man ba mën a nekk ci li nuy jariñ tey ak li nuy jëriñ ëllëg ndax loolu moom mu ñaan nekk nekk fi jaamu yàlla ak nekk fi di ñaan liggéey ci njaboot bi loolu rek moo fi bàyyi loolu ci jëm si woon ci sant bokki jullit yépp waaw suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew bàyyi seen yitte yépp ñoo fi teew dama xam ne noo bokk lii kon bu ma waxee jëm fii noo ko bokk noo bokk yéene ji noo bokk wax ji waaye ñi ngi leen di sant bu baax eh, di ñaan bu baax ñi ma ko waxoon léegi rek ñaan ci réew mi ñun ñëpp ko bokk lu bokk naan ñaan ñëpp suñu doon dolli dolli nu ci biir ak ci bitti gannaaw ban ko santee ci li mu defal ba noppi kon eh, ñaan boobu rek gannaaw cant gi jataay bi moom sant ak ñaan rek la sant nañ ñépp euh, di fas yéene rek euh, waxtu wu nekk ñu gën a taxaw ci suñu wartiif euh, jaamu yàlla nekk ci di ko santaane liggéey bi nga xam ne naka jekk suñu kilifa yi dañ ko daal digle jaamu yàlla ak liggéey rek kon mu góor nu góorgóorluwaat ci e, tool yi baax baax e, kenn ku ne e, la muy bëgg ci toolam njariñ la du yem ci moom réew mépp ko bokk kon mu dellu ci ànd gi nga xam ne moom laa doon wax rek mu jéem ko ànd bokk jaamu yàlla boo ko àndandoo di liggéey luy jëmee kanam réew bi rek noo ngi noo ngi leen di sant leen gërëm di sant bokk yi fi teew yépp ak yam yi ni teew fi ñoo ngi sant leen gërëm di leen ñaanal ñu ko waxee léegi rek waaw suñu borom boonu euh, wallu nu ñépp sotti ay xewal ci réew mi jëf mbokk taalibe yi yéen yi nga xamante ni yéen àndoon ak ñun ak seen groupe istikhama point com lii mooy li nga xamante ne nii moom lañ leen jëleli woon ci poroxaan atum 2010 màggalu poroxaan moo amoon ci alxemes ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum 2010 dëppoog juróom-ñaari fan ci jumaadal ula atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak benn ci wàllu gàddaay gi kon euh, ni ngeen ko gisee ci image yi rek lépp loo xamante ne nii suñu kem kàttan ci li ñu war a mën a indi indi nañ leen ko ngir rek ñu ànd dund bis bi ngir rek ñu ànd xam taxawaayu soxna si xam taxawaayu barab yi nga xamante ne nii fi la soxna si nekkoon doon liggéeyal suñu borom ba suñu borom moom ko fi ñu denc ko fi muy bis boo xamante ni itam mboolem ci diine lislaam taarixu lislaam Serigne Cheikh Bousso indil nañu ko amul jenn jigéen ci diine lislaam yu am lii mu am loola itam ab taxawaay lam bu rëy boo xamante ne nii soxna Jaara Bousso am na ko ndax moom mooy ki nga xamante ne nii mooy wayjuru Xaadim Rasuul di suñu yaakaar tey ak ëllëg te xaadim rasul ku koy wax da nga xam ni mooy liggéeykatu rasulillahi bi nga xamante ni nii moo ci gën a ràññiku doon xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ginnaaw loolu am na barab bi nga xamante ne nii ci la way juróomu tedd wi nekkoon doon liggéeyal boromam ku ne gis na liggéeyal na suñu borom waaye suñu boroom itam fay na ko mbooloo yëpp dikk nañu di murit yi fu nu waree nekk ci goxi àddina bi dikk nga ànd ak ñun bés bi ànd ak ñun li nga xamante ni mooy màggal bi mooy li nga xamante ne nii moom lañ leen bëgg ndi suñu kem kàttan indi leen li nga xamante ne nii rek mooy di lañ ci am ci ay image ak ay kàddu yoo xamante ne ni moo ci gën a ràññiku ñu indi leen ko am muy màggalu poroxaan atum 2010 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu